Fondation Karasoul, nous créons la tontine du prophète alayhi salatu wassalam. Membre de nek, nous avons 1111 poèmes. Si vous avez fait ce groupe, c'est fait, voilà, matalna. Membre yep si vous avez fait groupe, vous avez fait, vous avez calculé 6 semaines. Vous avez 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. ñaare danañ atteindre la barre de neuf milliards vingt dix neuf milliards de salaatu ala nabi kon fondation Kër Rasoul alayhi salaatu wassalaam sunu yitte yépp mooy ku nu kotuwaaye ku nu àndal ñu maas la lan bëgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam fondation Kër Rasoul alayhi salaatu wassalaam sunu yitte yépp mooy àdduna bi yépp Nek ay Rassounien ay Nabien d'où le slogan le carrefour des amoureux du prophète alayhi wa salam mourid bi ñewul ak sa bëgg mam Cheikh Bamba Khadim Rasoul, Khadim Mustafa. ak say charte nga Nanguko, la sa digal nga def ko la mam Bamba digal ci yow nga top ko taaliba cheikh bi Abdul Abbas mam Cheikh Ahmed Tijan, cherif le seigneur de la salaatul fatiha lam la wax nga topp ko topp ay ndigalam taaliba ñaseen ba kunta kunta taal taal ba ak canaba canaba ak laayeen ba alayhi salaatu wasalaam ku nekk toppal sa sëriñ déggal ay ndigalam toppal ay chartam ngeen ñëw ñu daje ci benn carrefour ban carrefour les amoureux du prophète ban carrefour ñëw leen ñu dem yokk sunu salaatu ala nabi kon fondation Kër Rassoul am na it wax FKR TV bi nga xamee ni askan bi mi sur sous tuteelu Mouhamad Al Moukhtar di mi communication fondation Kër Rassoul ngir lan lépp lu nga xamee ni filmé nañ wala événement yi ñu fexe di ko dugal ba àdduna bi yépp jot ci moo tax WhatsApp bi wax nit ñi ko statut di ko partagé ndax imaam Abdoulaye Mbaye Rasoul dañ ciy waxtaan benn xasida boo partagé benn nit bu nekk Nouvelle-Zélande wala nekk Dubaï wala nekk Afrique du Sud xool statut bi fekk xolam neexul woon mu dégg ay xasida maanaam ay poème yu nu tagg yonent bi alayhi salaatu mën na tooyal xolam ba xolam féex ba la ko naqari woon yàlla saafara ko nit mën na xool statut wala mu xool poème yi ñuy wasaare ci groupe WhatsApp bi nekk Italie wala Espagne du jullit mu déglu ko xool ba tooy ba mu ni laa ilaha illallah muhammad rasulillah alayhi salaatu wassalaam dugg ci lislaam kon objectif bi mooy lan bëggal mooy lan liggéeya di daw ci service kan sunu patron le patron des patrons ki nga xame nag attention nee naa taal yi tàkk yépp ba ni jëppat kenn dong moo leen taal muy kan muhammad rasulillahi alayhi salaatu wassalaam te nag koo yaakaar ku ne billaahi wallaahi wataalaahi yaakaar yaakaaram mën ko wéer yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon fondation Kër Rassoul ñi ngi woo àdduna bi ku ci bëgg adhéré yomb na ndax tënkul kenn teewu laa jàpp ca la nga ne ñu ànd di bëgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam groupe whatsapp bi bari na wala doyleeguñu ndax ma gan nee na ma tànk amaguñu cinq milliards yi nga xamee ni guddi gu ne ku nekk def douze mille salaatu ala nabi ma ne ko ndax dina doy mënu ma noo doyagul en attendant kon daal ñu ngi woo jullit àdduna yépp ci fondation Kër Rasoul alayhi salaatu wassalaam